ni bés boobu Pikine ni mu jógee mu mel ni ñëpp rek dañu jug rek nekkoon ci derrière ki nga xamante ne moom moo di Boy Niang ba ñu ànd ak moom ba biir stade gis nañu ambiance ni mais ba ki nga xamante ne moom moo di maire de la ville aussi gis nañ soutien bi nga xamante ne tamit apporté na ko mbër mi ba tax nag sànq maa ngi loon tabb laaj di laaj ndax moom maire bi dafa commencé ñëw pour ànd ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo di population parce que dañoo tàmb di naan moom maire boo xamante dafa dafa dafa la mm-hmm. maire boo xamante du dugg ci population la wala dafa nekk est wala loolu pour Boy Niang spécial la wala pour population Pikine bi la mm-hmm. waaw Pikine de yàgg naa am bés mm-hmm. doomu Pikine yàgg naa am bés kenn gisu si maire de la ville kon bu ñu jaawale lu bokkul diggante lay ci

ambassadeur de dëkk bi. Mhm. muy muy muy muy ki nga xam ne moo mhm. mais Abdoulaye Timbo nit ñi yàgg nañ doon ko bëgg a xaar muy génn di jaxasoo askanam di am affinité askanam. Mhm. mais gisuñu ko. lu tax nag xëy na moom ay raisons personnelles nag moom moo ko moom moo ko xam. mais du laaj Timbo, mbokk du laaj ci mbokk kese. parce que dafa am bés yoo xam ne bu ko Pikine soxlaa. mboolem kuy autorité Pikine yi da ngay génn. Boy bi muy def open press mais Amadou Diagne mu ngi fa ñëw ak façon boo xam ne façon bu extraordinaire dafa ñëw sax indaale indaale indaale indaale musique indaale indaale kanam ñeu taxaw Isaaxa Diop ñeu na président ñeu taxaw di jappalé ki nga xamné mom mom moom moom di frère mhm. mais nonu la ko Abdoulaye Timbo ñeu dabalé defee def de defee ko noonu mhm. mais Abdoulaye mais nag bu ñu jaawale ne Abdoulaye Timbo bon daf koy def parce que Pikine gi yëpp la wala daf koy defal wa Pikine yëpp amna na si ay doomu Pikine yo xamné nak nag ay sa mhm. soxla nañ gis la Timbo wala ñu soxla